ki nga xamante ni mooy Edward Snowden doon liggéeyee ci NSA muy kuréel guy saytu kaaraange moom moo génne woon ci atum 2013 lu nga xamante ni américains yi doon nañ ko def ci yenn dëkk yi leen wër boobu ba léegi nag moom yoon moo ko topp kii di australien tudd Julian Assange moom américains yi tamit dañ koy topp ginnaaw bu mu génnee ay vidéo armée l'Amérique di ray civil yu dëkk Irak ñoom ñaar ay lanceur d'alerte lañu muy jëfin boo xamante ni am nañu koy def fii ci Sénégal fii nag nga xamante ni moom la ñuy woowee protection des lanceurs d'alerte ñoom nee nañu ndaje mi ngir ñaax jox fit ñu nga xamante ne alerte lañu moo ko tax a jóg lanceur d'alerte yi lu ñuy def lu am solo la surtout ci dëkk boo xamante ni sax dafa may ay liberté ci waxtaan wi nag ñu soqee ko ci bari société civile ak lanceur d'alerte yi ñoom ñoo lëkkaloo ngir wut pexe nu ñuy def rek ba aar lanceur d'alerte yi. ministère de la justice au Sénégal qui ministère de la justice moom lëkkaloo nañ ak moom te ànd na ci dañuy xool nu ñuy def rek ba mën a aar ñi nga xamante ni ñooy génne li nit ñi di nëbb te du yoon loolu dina tax euh, ba nga xamante ni euh, dara du leen ci lor. liberté de presse ak liberté d'expression waxtaane nañ ko fii ñoom nee na ñëw lu ñu bëgg nag mooy téere buy dëxëñ lépp lu jëm ci wàllu information.